di defee saa su ne di seen bokk yi xalima bu ñëw tey ñëw nag seet si waat nga mooy Serigne Ahmadou Lahat Xasida fii ci diwaanu Dakar Apix waaye tam ñu gën koo ràññee ci bare bare ci bu sell bi Touba Mbacké balaa ñuy sori dara rek dañ koy daal di jox kàddu mu yonte gaskan wi sang lay wax salaamaaleykum waaleykum salaam lisaani wa qalbi saakirey kamahan hinal mumati mahal iman yallahu وكن محسنا من سر حسد وحسد في من سر يا الله وسر سر وسر قلق ثم جنه وسوء تشم يا الله مرامي من المولى عتني بلا حسن بجاي سبيل العالمين محمد يا من أجاب وليس أجاب حول إجابة في سجدائي سر اللسان جناني سبع عمان وسد براي عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الأمين بسم الله jërëjëf sëriñ Ahmadou Laxat xasida mbokk yi tabarkàlla sëriñ Ahmadou Laxat xasida gis nañu saa su ne tàmbali booy ubbi rek yaa ngi daanaka xasida gi dañ koy faral ba dégg ci ci lu ci euh, bunt bi ngay ubbee noonu ñaan googu ban ñaan la. Ah, mën nga tudd ci làmmiñ da li ci ëpp moom neexut a wax ndaxte day njëriñ loo xam ne am na commencement amul yemuwaay ci njëriñ yëpp ndax sëriñ moom xasida dafa doon loo xam ni euh, mboolem lu nit jariñu àdduna laaxira rek du ko def ci xasida ndax xasida alxuraan waaye mbooti alxuraan yi gënoon a jafe nga xam ni nit da koy soqwal ko tey ko mën ko mën koo am mm-hmm. moom da ko defee noonu suñ borom jox ko ko mu daal di bëgg a dimbali jaam ñi tax mu mu wàññi ko fi bañ na ko sax am na xes yoo xam ne boo koy jàng boo soxlaa yére boo ko jàngee ci ci ci bis boobu balaa desi nga am yére am xes boo ko boo ko jàngee balaa euh, balaa bis ba desi nga lekk lu neex amul lu mu ñu defal daal defal nañu lépp xasida nag day loo xam ne man li ma ci suñu li ma ci li ma ci xam ak li ma ci man moom mënu ma ko wax ci sama làmmiñ waaw loolu nag nekkul nit ñi ko man yàlla dafa def ba ma jógee ci daara ja xàmmee rek maanaam ci xasida la ma ñëpp xam foo ma dem nag Touba ak Ndar ak fu ne ma taxawal fay de kii liggéey ci liggéey boo xam ni xëy na du wax liggéey bu rëy sax ndax liggéey bu rëy moom yombul ci xasida waaye daal borom li ma ci ba nga xam ni li ma li ma ci xam moom su ma ko génnee ci sama lam ñu faatu waaw bokk na ci liggéey yu bëri yow may liggéey sax daanaka man mën naa la ci laa koy liggéey man ci ëpp ci ëpp li ma ci li may liggéey jërëjëf sëriñ Ahmadou Ba xasida yaakaar naa loolu am na solo lool tabarkàlla ndax ñu bëri ràññee nañu la ci bu ba bu baax a baax rawatina tam euh, ci bërëb sëriñ Touba Mbacke ñu daal di ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ngi woote woote bi dañ koy jàmbat saa su ne sëriñ Ahmadou Laxat xasida lu waral jàmbat bi jàmbat bi jot bi jafe lan la ndax sëriñ Ahmadou Laxat xasida moom rek la ñuy jot wa ilaa tam ndax fa ñuy dal euh, dañuy dal ci ki nga xam ne xëy na amaana tam appel yi daf koy sonal ba du mën a jël ñëpp loolu tam bëggoon nañ koy xam dara ah, loolu moom bokk na ci lu ma ñor lool ndax lii sax maam ressources yi di bëri fii sax ay tànk bokk na ci li ma gën a neex may leeral loolu pour nit ñi di ko xam ndax lii maam euh, ci la li nga toll ak fi nga nekk man cee xamee itam maanaam li xamul ndax man maay génn di wax waaw bokk na ci liy waral loolu wax naa ko ay yoon yoon du suñu coobare te suñu sañoon itam képp ku ñu war rek ki ñu jël la taxaw ci seen mbir ndax xam nga li war li gën a waral loolu nag mooy xam nga nit fekkee li ngay liggéey doo ca fayu dara ndax man amul kenn ku may fayu dara ci li may liggéey muy seet lu mën a doon muy ñaan lu mën a seq loo xam ne xam naa ko ndax ni ko xam ne am waaye li fi nekk ku fi ñëw te ñëw te mun li nga soxla nekk fi du jëfee dara yaa xool na nga am rek waaw ba ñu topp mooy kan li waral loo mooy li ñuy toog bëriwut ñaane ba mooy liggéey yi day bari te nit ñi li ma ay deux cent personnes loolu nit benn nit mënu ko liggéeyal bu fekkee ne da ngay liggéey affaire sëriñ nga xam ne lu ci ëpp ci àll bi laa koy defee man fii du fi liggéey da daanaka mën a yàlla waaw nga baal ma foofu sëñ bi ndax xam gis ni sëñ fekk ko fi lu bari fii ci Ndakaaru xëy na rarement ngay am chance tombé fekk ko fi mu nekk fi fi ngay génn génn bi lu lu bari bi lan lu ko war waral moom it ndax da ngay recevoir ay yeneen patients yeneen régions yeeg yooyu bëggoon nañ ci xam dara tam déedéet man xamee moo sax ay <clears throat> kilifa ak kudu kilifa man li ma xam mooy nit ku baax te bëgg lu baax rek waaw boo fa ñëwee fekk fu lu baax dañu jàpp li tax may génn mooy an liggéey yoo xam ne kenn mën ko liggéey ci dëkk yi waaw ndax xel comme am na liggéey yu bëri yoo xam ne fa daa ko mën a liggéey ndax suuf suuf soo xam ne suuf soo xam ne dafa boole jàng jàngale ak bay amul suuf amul bakkaar léegi nag anu ci boo fekkee da nga ñaan ci barke di naanal nit ki loo xam ne da ko jur ëllëg tawfeex Euh, dëkk yooyu moo lay gën a ànd maanaam ci euh, fa ngay gën a mën a suñu borom pour mën a liggéey yenn liggéey moo waral ñuy bari ay tànk xel ko moo waral itam ay dem léegi ñeneen ñu war fi ne xaar bu ñu ñëwee nag am na xam mën nañu woote sax ci sa jot ma parce que am na xam nañu woote rek ci kaw rek bu ñu jaaree ci secrétaire ñoom tam bu ma sànnee kii man ñu ma gis rek ñu laaj jël léegi ñu njëkkoon a ñu njëkkoon a yónnee nag dañ fi yàgg moo tax ku nekk foofu rek da ngay fexe heure boo kii nga yeesal waaw doonte da ngay bind dara lu mu daan wax ngay yeesal di yeesal day tax mu nekk ci kaw

ci côté yëpp mais sax ba bëggee xam-xam sax boo ko bëggee dëgg-dëgg foo nga jaar fa te la nga fay jàngee gaaw ko mokkal bu dee mbayeen dëkk doo gaaw a mokkal ndax rawaxaan yi dafa nekk uh, ñoo ñoo mel ne dafa dafa may rawaxaan yi baax ba ki topp itam liggéey yi bon yi xew léegi fétiche yeeg ndax léegi daanaka mën naa la lasaraar daanaka faatan lasaraar yii nit ñi di wax daan lasaraar lasaraar daanaka fa faatu na man man laay wax rek daanaka amut daal ndax lasaraar ñi muy jàpp ki muy jàpp mooy ku sell moom ah lasaraan xam nga boo xoolee daanaka lépp alxuraan bu njëkk maanaam ñu daan ñu daan defante lasaraan ñëpp maanaam ay jullit lañ woon ba pare dañoo yàlla moo tax ñoo leen jàppante du jàpp ku tàq moo tax lasaraan yi ak ay xaatim Suleymaan yi xaatim Suleymaan sax mosu am moom xanaa nit ñu koy wax rek ay amul mais sëñ bi euh, xam ñu suuf sedd nag yu demee noonu mhm. est-ce parfois est-ce sentir wala sëñ Ahmadou Lahat Khassida mu ngi sentir loo xam ne ci leer na ko lii attaque la loolu day am parce que xam nga liggéey maintenant même bu dul sax liggéey mais am na ñoo xam ne sax ma raw xaan dañuy ànd ak rab boo xam ne a nga gis ni kuy ñaan am ay doom yu melu nen wala loolu day fekk maam ngaa xamul rek parce que moo tax da ngay da ñu bëri naan raw xaan dañuy xeex ak moom raw xaan kenn du xeex ak moom la raw xaan du doomu xam nga jinne ak doomu aadama koo xam ne tey maanaam bu ngeen ngelawam képp bu la ëffee yow maanaam yow mën ngaa faatu ah koo xam ne tey yaa ngi bu ngeen dajee tey bu ngeen dajee woon ci mbedd mi maanaam nga am ah, ah, lu mat 100 mètres buy ñëw mu nekk nit de sopplu nit buy ñëw di nga xam ne liy ñëw nii du nit dina am pouvoir boo lay dugg boo xam ne sa bopp kar bopp doo taxaw dootoo ñemeeti léegi nga bëggeen kooku mën ngaa xeex ak moom loolu mënta nekk koo xam ne day dund ay junni at yow dundoo sax lu mat cent ans ah nga ne mën ngaa xeex ak moom mënu mënta nekk yooyu ay dañuy nax nit ñi rek ay jatt yu jatt nit ñi nit ñi di xalangu fii ñu naan ay nangam na loolu dara yooyu dara karamatul ay ni mais am na ñoo xam ne dañ lay wan ay hmm. ñaan mais yéen yéen dafa mel ni yéen di gis leen wane wu leen waaw képp ku tënku ci na xam ne moom xam ne ak ah. daa am karam na xam ne yoo xam ne sax yëpp sax man yu gis Sénégal sax yëpp moom daa nga ay tappal dong la yu bari sax du dëgg waaw mu gis naa fi ñoo xam ni ok am na ko am envoyé benn kii sëñ sëñ Cheikhouna Mbacké envoyé ma benn waay loo xam ni bañ nekkee maanaam ke daara jaxale yi dañ ko doon def ah. jël benn kii euh, euh, tudd kayitu euh, kii ataaya def ci ataaya di ko tàngal di ko tàngale ndox ah, loolu dara sëñ loolu yéeme loolu dara loolu bu fekkee bu ngeen ko waxante ji ma defal leen ko loolu du dara loolu du kanam naa ne de lu yomb la ah, ginnaaw bi gis naa am na ko xam ne yéen fi nga nekk nii am ko xam ne caméra euh, euh, na ba mu def ko war leen leen li dara yooyu dara nañ bàyyi yooyu ñu naxee nit ñi ndaxte seen nga ñaan ñaan suñ borom bokkut ak loolu seen nga boo xoolee kilifa mag yi suñ jubaa ngi nii dafa dem ci géej gi lu ne def na ko julleeg suul ko fu ne def nañ ko bu ko ay gaynde lu ne ba mu ñëwee lu wax sama karaama xam nga lan la ñu ko la mu ni son binum loxo karaamati xattu yadi la wax mu ni loolu mu ni loolu moom mbirum suñu borom la maanaam yàlla moo doxaloon ndax de ba demee fii ci àll bi li gis fi ak ñu naaw séeréer séeréer saa ngi nii gëmuñu suñu borom dañuy naaw di mais li mais li ma jaaxal jàkkaarloo lu bi yow wala xoolal xam nga la may kiraama sax dëgg-dëgg man nekk naa ci daara ay nit di dekkal loora ñu dekkal ko ba reyee jinax ñu dekkal ko ba reyee mbóot ñu dekkal ko waaw te duma duma wax sax ndax man am na yoo xam ne dama koy def am na ko wax xam nga wala nga indi jaan wala loolu dara yooyu bokkut ak ñaan dara. waaye sëñ bi loolu ak xam nga nit na man nangam loolu ko waral dañoo maanaam ñaari mooy sonal karaama daxay ni ak seet na ñoo xam xam ne day dem ñoo woote pour pour jënd seet dofu leen ndax yéen xam ngeen yow nekkoon fi fa nga njëkkoon nekk xam nga ba ba nga ñëw ci man ci seet. waaw. de ma de dëkk boobu télé ma fi dégg ci seet ni fi doon ni ma fi seetee gisoo kenn ko seetee. waaw mais man pirate boobu laay bëgg a wax sax ñu waxtaan bi affaire pirate ba dë dafa commencé sonal askan bi muy seetu loxo bi nga xam ni yow c'est la première fois ñu ba ma jàkkaarloo yow de moom laa njëkk a dégg ngay wax ci seetu loxo taxaw nga ci ginnaaw si taxaw nga ci fi nga xam ne télévision. fépp ñëpp di la xool ci àdduna nga nga seetal nit en direct ci plateau. ak yow wa ma moom laay wax moom seetal nga ma. <laughs> waaw boobu sonn naa trop. nit ñi naan ma sëñ bi. xanaa da da nga kaa waxoon say mbir ma ne ko déet daf ma seetal en direct parce que boobu man sama yaram tàng na moom it yaramam tàng na léegi seetu loxo bi di nga xam ne léegi nit ñi sax daanaka dañ ciy piraan mhm. gaa moom ci yow ko mhm. euh, nga xamante loxo ko seet boobu ak seet boobu tam bëgg naa xam euh, euh, xeetu seetu loxo bi ndax ñëpp lay jàpp wa ilaa wala déet tamit ban loxo la ñuy seetee ndajoor lépp ni lu même ci àdduna am ci loxo ndajoor lay jaar ndajoor rek waaw lay jaar ku la wax beneen loxo bi. beneen ba xam nga loxo bi liñ gis lépp mooy lu ñaaw lañ ci gis. waaw waaw mais bii dafa boole ñaar yëpp loxo ndajoor lu ñu dem ci àdduna fii lay jaar xanaa du ñu joxe dara xanaa nga di ko jël ci sa gémmiñ en tant que du nangu loxo mooy nangu bi sa lépp suñu borom ci la am nañu ko suñu borom xam ne dañ ci xam foo mën a nekk ci àdduna bi boo yónnee sa loolu ñoo xam ne boo yónnee sa loxo ndajoor ci whatsapp ak sa tur waajuru jigéen képp laa soxla maa wax la loo fanaanoo loo yendoo xamal la mboolem loo xam ne si lu nekk ci yow la ci kàttanu suñu borom duñu fay doo ci fay dara loolu moom may at ak nit ñi xam nañ ko da ngay nañu bari doo di ko wax na ko may nit waaye xam nga loolu néew ci téere moo tax ma ko xamee waaw xam nga nee la xam nga liggéey maanaam ñaan yàlla du lu ñu jaay du nekk lu ñuy jënd da nga ci nekk di ci liggéey ba suñu borom wax yu la ci ay ay mbir rek muy mm-hmm. mel ne comme ça nga nekk ci liggéey ba far xam ca laneen loo xam ne sax man karaw jàngal sax xamoo ko xamu ko xam nga tey alxuraan ji tey maam tey bu fekk da taxawal ay guddi di moytu ay yet jataay yi way texey di ko comme ni ko suñu tubaab waxee di moytu yu bëri yu bëri bu am lu suñu borom di dimbale di dimbale ijaaba ak yeneen yoo xam ne maam day dikk baatin mooy baatin bu nga déggee mooy lu nëbbu lay baatin di waaw mooy góorgóorlu ci ki dara rek bu suñu borom mel ki dara li ngay dégg lépp seet mun am na yeneen sax yoo xam ne samay maam laa ko jële mooy ay lekk ay turu jàmbu turu waajur turu nit ak turu waajur mu jigéen da nga koy bind xam ne boo tëddee ko comme ni ngeen mel ni seen caméra yi lay daw dañu leen woon lépp comme gént mais yëpp sëñ bi dama am li bëgg a dimbali nit ñi mooy seet man ko taxut a mën a ñaan kilifa yaa ngi ni buñu lay ñaan loo kilifa yi buñu lay ñaan loo duñu la seetloo du la seetloo sax da ngay ñëw ñu la danga nga ne danga damaa nekk ci nangam te loolu xamatuma mu ngi commencé commencé yàqu nangam nangam xala daa bëgg defal ni ah, ndax ñi moom fay xooloo leen ba gis yor xaaj ba da jënd seet man la man seet bu ma jaay aw ma ko ndax yi ma yor kon ñu ngi ñëw ci yow ah loolu ko ñëpp xam nañ ko bu tudd jour waaye bari nañ jërëjëf sëriñ Ahmadou Bamba xasida mu ngi gis ngeen ko rek euh, tey muy jotaay euh, xalima bu ñëw tey ñu fekk si waat ko rek euh, fii ci diwaanu Dakar Fix rek di ko santaat bu baax a baax léegi itam mu ko waxee mu ngi ca bërëb bu sell bi di Xelkom waaye tam ca Ndar tam wax na ko ci Saint-Louis mbokk numéro yi téléphone yi ñu ngi noonu rek affiché ci baaru écran bi 77 464 40 02 wala beneen numéro bi 78 330 31 31 sëriñ bi daanaka Euh, ñu daal di ñëw ci jaaro bi laay boole ak sam euh, samsul bilat euh, mi nga wax nii ni daanaka ñu bëri tam ñoo ngi koy wax muy janti dëkk ndax am na ñoo xam ne nag sëñ Ahmadu Laxat léeg-léeg ñu dem ci dëkk nekk ci gàllankoor trop nekk ci jafe-jafe trop franchement fu ne dinañ fa dugg mais mbir mi wu day mel ni dëkk boobu dañu jàpp lu seen jëmluwaay amaana mën na nekk seen jëmluwaay mais dañoo jaaral si yoon rek ñu bëggoon waxtaan ci samsul bilat ak jaaro bi sax lay boole xam nga tukki moom li njëkk mooy tukki nit ki war ko def mukk te maanaam xooloo fa nga jëm ba xam ndax nit ku ne dafa am lu baax ci yow lu baaxut ci yow mu mel ni euh, tukki ak ak ak ak soxna ak waruwaay ak kër ñeent yi moom lu gën a gaaw mën a may nit dimbalu ko ci àddunaam la waaye lu gën a gaaw mën a yàq nit ci àddunaam yëpp la ndax bay tukki bala ngaa dem war nga ko mën a xool léeg-léeg nga gis ko xam ne day jóge fii day nekk fii am am fi lu ne tukki lu a am fi sax moo watu ko am waa léegi am na am ñoo xam ne yàq-yàq yi fi li nga koy jëlee yóbbaale ko waaw ah, léegi nag bu ñu nee laal mu yàqu lu ñu dugg mu yàqu xeeti mel noonu loolu lépp maanaam bu suñu borom defee too tawfeex rek yàlla mën la ci defal jàmm ba nga xam ni eh, danañ jàppale bu baax a baax waaye daal li ci am solo am solo moom maanaam fay ma ne ci àdduna bi ndax ñun nekkuñ lépp la ñu xam waaw fay ma ne ci àdduna bi buñ buñ xoolee ba xam ne mën nañ ceew dara dañuy dimbali moom te suñu borom tax te itam duñu laaj dara sarax nag moom sarax nu mu toll da nga koy yénne waaw sarax moom sarax moom moo tax nit ñi li ci ëpp si leen dal mooy ñàkk saraxe ak ñàkk a seen waajur wala rab seen ñett yi mën naa la ñu ngi fi dégg ñëpp boo ñëwoon téeméer nit juróom-ñeent fukki bépp problème boobu duñ génn fii rab <coughs> sarax <coughs> wala seen côté waajur seen waajur yi nit ñi dañoo tëlee xam waajur yàggut tey jii maanaam koo fi laaj sa waajuru jigéen wala waajuru góor mu la kenn ki dem na war a góorgóorlu ci ñoom ba nga xam ne ba ñu fay jógee nga am seen gërëm loo am baax na dërëm sax boo ko amee ñëwal jox leen ko ñoom ñoo xam ne am nga ci ñoom yéen waaw suñ borom da lay dimbali ba foo dem buñ la ñaanalee nga am taw te ñaan nañu xam ne bu dee lii nga xam ne mooy alxuraan dafa nekk ñaan koo xam ne mën naa yéex mën naa gaaw waaye dafa barkeel ndax lu ko boo demee ay dëkk yu bari ay tubaab yii amuñu géej amuñu usine te lépp fa la ñu yombee lekk nga naan xamula lool barke lañu lañu que mag ñi dañoo xam dañoo liggéey te ñu dañuy dem ba nekk mag amul amuñu sax doom ju mag mais duñ duñ manqué lu ñu soxla mu fajo ah nga dem ci kër fekk fa ñeenti soxna doo xàmmee sax seeni doom tey jii Dakar gi ku fi bala woon ñaari soxna ci génn kër rek boo wàccee fekk dañu ñu rayante da ngay dégg lépp ay talent ay nangam loolu da ko dégg ci ci yenn ci yenn kër yi kilifa yi mënu fa am sax ndax lu ko waral dañoo bàyyi li ñu moom soxna koy takk soxna sa doom soxna ak sa doom sa alal lañ da nga leen di peeg def leen loo xam ni ci alxuraan suñu borom dañ leen jàmmal jàmmal leen nga yilif leen mën leen tere ñu bàyyi def loolu ñu def dara ci nekkul waaw ah. jërëjëf euh, euh, euh, bi moo ngi jaaro bi jaaro bi am na ñoo bi nga xamante ne est-ce que jaaro bi li nekk samsul bilaat mën nañu ko fekk ci am ndax ko waaye ñi ko mën a am moom bu ñu ko amee am na ci kilifa yu bari yoo xam ne ko xasee bu ñu tukki sa morom la ñuy wut jaaro nag daa bari façon bari ay wax ba nga xam daanaka moom jaaro sax di ko wax léegi sax daanaka moom benn mbir la te léeg-léeg nga digg jaar jox ko nitam raw xanam yàqu ko am. moom raw ah, yàqu ko waaw day am day am mais jaaro am na jaaro yoo xam ne sax maanaam jurub benn sëriñ du ko defaral bu dee jaaro bii mooy bii ma takk nii bii nii li may fay ruus ñëpp xam nañ ko moom iranien yi ñoo koy ñoo koy bi mooy iranien bi bii ku ko mën a am foo foo ko mën a jënd baax na fexeel xeer la rek xeer la mais dafa baax day dimbali nit bu baax a baax ci àddunaam ci ay yàq ànd ak dara mooy bii nii bii bii moom jurub di dem ci kenn boo gisee iranien daal iran képp ku dem képp xam ne maam xam nga ko ci côté iranien yi buñ la ko dalee per bi mën mën nga ko tëggee fu la neex nga teg ko dina dimbali ci ay yàqu-yàqu yu bare bare bare bare te itam dana la boole ay nit yu sopp te yàlla suñu borom rek tax waaw waaye nag waaw waaye nag am na jaar yoo xam ne nag moom dañ koy liggéey waaw ndax samsu bilaat boobu samsu bilaat am na jaar am na jaar yoo xam ne ay xabs la yoo xam ne foo waay ma ci àdduna bi soo ko booleeg ndoxum géej ma nga ba nga nekk dafa nit di am di nga bu dañ waaye day fekk itam xool nit ki ba xam itam tolluwaayam ndax léeg-léeg nga sax xeet yooyu na parce que loolu boo ko see am ñëppay da wut si la mu ci def lu jigéen nag ñëppay da wut la léegi nag mu ci def loo xam dëpp wutul suñu borom bëgg moo tax bu ñu koy liggéey nit foog ñu xool ko ba xam ndax kii nit ku caaxaan la wala du koy caaxaan waaw jërëjëf sëñ Ahmed Ndour xasida waxtu bi dab nañu sax daanaka xabaabal nañu ay simili waaye itam fi may daal rek ci benn simili ba mu ko maye ndax mhm. daanaka sax xabaabal nañu ndax jotaay bi dafa am mhm. ñu ñëw ci wàllu li nga xam xëy na ci xew-xew jamono naa ci benn laaj la rek mhm. moo xam ci wàllu politique bi ni ne làmb waxoon nga fi ci diggante Balla Gaye Modou Lo euh, làmb ñu mosoon nañu la ci sax wax nga ne daanaka yow sax doo ñaan ci làmb waaye tur ba ma la wax nga ne buñ jugul dëgg dëgg dëgg dëgg ci li nga xam ne moo di làmb bi du am te am na benn jamono jàppoon nañ date bi le premier waaye pusaat nañ ko yóbbuwaat ko le treize si nga xamante la xasida sa sa sa sa njàngit foofu. waaw ah, man la ma waxoon lay waxaat rek loolu mo soxla jugut man lu li nekkut. moo ca xëy amu ah, moom dama wax ñu bare bare ku ne képp koo xam ne moom da ngaa bàyyi see waajur maanaam di topp ak taxawaalu jërë nga ñëw ci man lépp loo xam ne di nekku ca jërë nga ñëw ci ñi ngay wax nii ñëpp woo nañ ma waaw ah, làmb ji ngay wax nii kenn ku ne ci sa maanaam ña la yor woo nañ ma fi am na ci koo xam ne sax moom ña ko yor Europe woo ma téléphone. duñ ma lu ne may leen bi man du ma li ma la wax li ma wax ci télé laay wax li may dund li wax li ma la wax rek ku fi ñëw loolu laay wax man du ma wax lii di waxal la neen waaw sëñ bi laa di wax ni nit dangay dangay xool waxee jëfi dem ak jëfi tayam buñ ne benn nga jàpp ko man ci loolu laa nekk ndax man amul dara lu dara lu war a maa tax ma may wax lu benn noonu amul ku nekki ci daara am oto am kër am lépp daara lax daara jàng kooku bu génn ci télé di wax ngir lu ko jox koom kooku kooku kon góoriwul lu nii nekkul amu joxe amu ci ngonta nee naa leen nag lamb ak am naa ci xarit nag politique ak lamb ak ñëpp ay nit lañ ko man gënuma leen waaye man daal du ci ñaan waaw la ma wax ni tam tax ma waxoon ko mooy gis nga ni demee noonu mooy coow ci amoon nag nangam nangam ba am na yeneen coow ci yu loolu réew mi la ñëpp ko bokk waaw te itam lu fi man li ma a naqar mooy maam nit ñi ci faatu rek loolu moom ci naqar yi waaw heure bu nga dégg ñu ci faatu waaye nag moom ma daal sama yoon nekku ci noonu daal daal affaire lamb sama yoon gannaaw loolu moom ci côté euh, fenn année bi maanaam ku ko man maanaam euh, bis bi bis bi euh, takkusaan bu jotee nangay jàng xuleel kaafiroona fanweer ak benn ba julee ba julee ba julee ba julee takkusaan pare nga wut lem boo demaatee maanaam ba nga xam ni euh, julli nañ timis nga jàngaat xuleel kaafiroona fanweer ak ñett boole ko xul waa xul wala waxaat fukk ak benn joxoon naa beneen bokkut ak boobu waaye bii tam ñaar yëpp benn lañu waaw bu ko defee euh, kenn ku ne tibbee ko kuddu kudd yi ndekki kay waaye dangay def ku tibb kudd rek nga fa jàng faat yi kudd ku ko def rek suñu borom mën laa dimbali ba at moom suñ borom na mosal ci balaa yeeg xeet yi te itam mën naa dàq itam at mi romb incha allah rek bu neex suñu borom. tabarkalla jërëjëf sëriñ Ahmadou Lahat Khassida sang bi lan ngay tàggatoo xanaa sant yàlla sant sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem jullit yëpp mbooleem xalifa général yëpp ñuy ñaanal ñaanal sëñ Cheikh Bara Lahat Mbacke ay yéen yi nga xam ni yàlla suñu borom def na ngeen ñëw di yaatal liggéey yi te dimbali doomu aadama bi dimbali nañu ci ak réer yàlla suñu taxaw leen itam saa yi rek waaw loolu rek mooy ci am solo ñu ngi leen di siyaar baax daal di ñaan suñu borom defal ñu sangaatu daare ni ci réew mi te at mi ngi dugg itam suñu borom sotti fi xewal ba muccal mbooleem doomu aadama yi fi yewwu ci ci ci ci ci réew mi ba balaa yeeg euh, yàq-yàq yi daal suñu borom dimbaluñ ci dimbaluñ ci dara saa yi rek baatin asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi santaat nañ ko beneen yoon di sëriñ Ahmadou Lakhat xasida mbokk ñu fekk itam fekk si waat kon ko fii ki di wan Ndakaaru ci résidence sama pix waaye tam ni ma leen ko faral di waxee saa su ne ni mu ko waxee rek léeg-léeg itam mu ngi ci bërëbu sell bi Touba Mbacké waaye tam ca diwaanu Xelkom waaye ci diwaanu ndar ndar géej itam mu faral di nekk lu ci bare di jëflante gaskan ni di ko ñaan allah guddi subhanahu wa taala doole guddal fanam lool doole laa defal taw feex ak tey si defal la saxa dara ci barke sëriñ Tuubaa Rasuul ci barke sëriñ Saliou Mbàkke nga yàgg lool di jëflante gaskan tam sa borom dalik defal ndam macha allah ki xam-xam bu sell bu rafet gile du nuy boole équipe technique bu bi éclairage bi euh, Cheikh bu baax seen jotaay xalima bi ñëw fii ci diwaanu euh, APIX ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla mi borom jàmm teer ku mu nga daal di am jàmm yàlla yàlla sa borom bi doole ñu defal jàmm dina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu